Madické Niang moom ci boppam mu ngi ñaawlu lacrymogène yi nga xam ne moom ci boppam fekkewu ko de waaye ci biir assemblée bu ñu waxee dëgg te yàlla tax xet ga ma doon doon dugg ma nga doon dugg na ngelaw bee ko yóbbu ma nga doon dugg ba ci biir ba mu génnee nag dem seeti Idrissa Seck bi nga xam ne moo doon lëmbee Dakar tax na nag mu ne arme bi war nañ ko uti xool nuñ koy jéem a déstabiliser ñoom nag opposition ba ña ngay préparé ñoom tamit seen lacrymogène mu doon lacrymogène contre lacrymogène ñu dem seeti Madické Niang moom ci boppam na la fas yéene ànd ak Adja ci lacrymogène ñëw tey ñu ngi ci fi nga xam ne moom mooy siège yu parti démocratique sénégalais war a saar ci boppam moom a njëkk wax ne ma man ci boppam pare naa pour ñu bokk ñun jigéen ñëpp ñu daal dee ànd def li nga xam ne mooy lacrymogène naturel waaye dama xam ne ndar-ndar bu jigéen jongama ndar-ndar ak xale ndar-ndar xawma luñ leen di luñ leen di mere waaye togg bokku ci xuja bu def nokkos rek ci ceebu jën ñu war koo nokkos yaakaar naa ne ne buñ ne nokkos ak ajaa ajaa xuja doy na ma ci su ko defee ñu may ñu as tuuti rek ñu wan le Macky la li nga xam ne moom la génne keroog lacrymogène loolu rey na nit ndax diggante Palestine ak Israël xeex la boo xam ne ay ati at la mm. waaye ñetta gaañu yëpp maar day taani waa Palestine la lacrymogène ci boppam waruñu koo jël di ko sànni nit lacrymogène yoo xam ne ca jamonoy Senghor da dem sa buñ la ko sànnee ngay ree. ngay dëgg la Ndiaye. ca jamonoy Abdou Diouf lacrymogène dañ ko doon sànn du la def dara. billaay Ndiaye ca jamonoy Abdoulaye Wade moom raay duut la da lay aqutu rek doo doo sëqat waaye Macky Sall jël loo xam ne kenn xamul lan la da ngay guddi di sëqat bëccëg lu ne sa noppi bakkani di yori direct bu xonk cur loolu dafa ñaaw comme que nag daf ñu woo ci togg nag lacrymogène ñun ñu wan ko nag ñun du ñu jël ay armes chimiques dañuy jël li nga xam ne moom moo am suñu réew consommé sénégalais bi Macky Sall di wax xaaruñu woon ko nag lacrymogène Sénégal a dàq lacrymogène yëpp ajaa xuju ana poobar bi dëbbal loo defee gum poobar def naa poobar def naa kaani def nga kaani ma maa la wax lii dëbbal bu baax jox ma mbuus mool la bàyyil mu moo ko tuuti demal ajaa xuju dafal carotte carotte bii bu fekk see li nga xam ne moom mooy kaani bi ak poobar bi kaana kaana gi day dugg ci bi bu baax a jaaxul nank rek. waaw bul indi fi na fi defal nga karoot tuuti. waaw defal ni jaay. li nga xam ne mooy saw gaynde bi. nii ni jaay. am nañu ko jëlee sawu gaynde. waaw waaw karoot ak sawu gaynde poobar ak kaani. waaw waaw xaar ba mu ñor defal naa xaar mu. dollil. dëgg <laughs> ko nank nag <laughs> gis nga yaa ngi commencé gis. gaynde du saw gaynde sawu gaynde rek loolu bay des ayca continuel Adja Khoudia continuel ayca continuel continuel rek kii du kaani salaat kii du kaani salaat Adja Khoudia na saf ayca doon li dëppal la lacrymogène la Macky Sall di nga xam ne lacrymogène a saf dëppal Adja rek dëppal dëppal bu demee ba ba ba ñu woo sa tànk Adja xuja loolu yëngalu laa ca continuer la. dooleel yëkkatil tuuti. na saf àllaaji. riijal riijal kii bi waa kay waa kay. na saf àllaaji Macky Sall xam ne. dootu ko defati. soble la. def ci soble bi waaw. tëbbal noonu sax. dana xam ne ne lacrymogène. lacrymogène dëgg. naturel baa ngi ne. Adja xuja poobar la nii ko. poobar ak xorom polle dañ koy dëbbaale mbuus mi ay ta yëkkatil naan. defal ni jaay ne ko ci bajj. defal kaani ko waa naan. lii la du laaj. waaw. yaa serve lii du laaj. lii du laaj. laa yàlla ko ci biir. lii du concombre. ayca. def dabal dabal Adja Khoudia dabal. attention attention ndànk rek saf na tiso yaaram kalla yaaram kalla eh bu ko fi yuutee te génnal rek génn génnal génn Adja ko jëkk jàppal rek jàppal saf na sa bët yaa ngi jooy acca da dëbbal dëbbal Adja ko da dëbbal rek Macky Sall dina xam ne bu dee lekk limousine la ñoo ko dàq am na poobar am na kaane am na laaj am na gowe am na li xam ne mooy concombre am carotte am li nga xam ne mooy kaani salade am sawu gaynde dollil concombre aja xuja dëppal dëppal xaati so xaati so xaati so xaati mbaxane lu fekk bul mbaxane bi aja aja xuja ay xaati Hatsha! Hatsha! Hatsha! Adaa ko jógal. ma aaw la tuuti àcc. Hatsha! Woy yaay Adaa. Hatsha! Hatsha! Léegi nag bii ngay jël. jàkkaarloog policier yi. Léegi nañuy def lii nag moom mooy mbolde bi jàkkaarloo policier yi Adja ko jox sama mbaxane jottali ma ko xaatis jo mbaxane nga may jox ko rek ma ko xaatis jo xaatis jo